asalaamualeykum wa rahmatullah wa maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax jumaa mubarak alayna wa aleykum tey incha allah rabi ñu ñëw jox leen benn secret boo xam ne géomatie lañ koy wax géomatie Solomon euh, muy secret boo xam ne nag bokkut ak yi ñu leen doon jox ndaxte àddina moom xam-xam dafa yaatu moo tax lépp loo xam ne xam nañ ko rek dañuy ñëw séddoo ko ak yéen di ñaan yàlla suñu borom. lépp lu ngeen fi jël di ko def rek yàlla mottali ko lépp lu leen defal itam yàlla lu ko yàlla rek mooy nangu ñaan kon yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp incha allah da leen di ñaan rek condition yi mooy ñaan yi mu leen di jox de leen ko def si lu neex yàlla joxu leen ay secret bu kicc mu jug rek jël rek di def di def man ñaan naa si yàlla képp koo xam ne yaa ngi jël secret yi may def di ko di ko di ko def si anam boo xam ne jaaduwut da ngay def yàlla bu mu sotti yàlla boo si am ndam te ku koy def itam dina ko rëccu kon def leen ko si anam bu rafet moo xam nga am ak problème sa jëkkër sa jabar loolu am na solo wala nga bëgg nit euh, sëy ak moom te yàlla tax am na solo kon bàyyi leen xel loolu euh, kon jaaro yi ngeen di gis dafa am fan yi nag da am ay commande yu ñu si am ay nit yu ñu koy sant parce que dafa am ñu bëri ñoo xam ne du ñu bëgg di takk ñii di ñu bëgg di sangu ñii du ñu bëgg di raayu te itam dafa am yu bëri yoo xam ne euh, day dimbale nit ki bu fekkee ne maanaam nit ki amul habitude di takk wala muy raayu nga xam si bëgg na nekk ak jàmm ak jëkkëram wala jabaram wala mu bëgg nekk ak ki mu bëgganteel si jàmm ak salaam yu bari dina ko mën surtout bu amee jaaro bi du ko takk dana tax nga moom sa borom kër wala nga moom sa jabar dégg nga kon ku ko soxla rek comme ni ñu koy faral di waxee mën nañu contact suñu numéro yi ñu seet naka la ñuy defee ba ngeen mën koo jot surtout ñi nga xam ne da leen di jafe pour ñu mën koo takk waaw dañuy am jafe-jafe pour takk wala pour sangu wala yu demee noonu kon nag jaaro bi boo ko takkee lépp lépp loo xam ne nit ki da koy raayoo wala mu koy takk jaaro eh, bi dana ko mën a remplacer incha allah kon secret bi la dugg directement rek wax leen ko mooy da ngay ut benn kayit nga bind si li ngay gis nii muy géomasi Salomon boo ko bindee hmm, ni ko gisee ni nga koy bindee amul yokk amul wàññi nii ngeen ko gisee nii ngeen koy bindee waaw ni ngeen ko gisee rek nii ngeen koy bindee. bu ngeen xoolee si suuf lépp leer na waaw euh, si digg bi ngeen gis ma def ton nom son nom si français foofu tur yi nga fay war a bind ki nga xam ne moo bëgg mooy ni si kaw ki mu bëgg ni si suuf lii nag bésu alxames si suba nga koy bind bésu suba ngay teel a yeewu doo wax ak kenn nga bind ko dégg soo ko bindee nii nii benn yoon rek nga bind yow sa tur na ne si kaw tur ki nga bëgg ne si suuf nga lem ko ba mu nekk kayit bu ndaw nga ut yàpp bu xonq yàpp bu xonq nag su ma ko waxee waxuma nga dem ut yàpp bu xonq cur boo demee si ñu jaay yàpp am na yàpp yoo xam ne day day faral di xonq waaw bu ko defee yàpp yooyu ngay ut nga xar ko jël kayit bi dugg ko si biir kayit bi nga bind dugg ko si biir fii nag amul ubbi amul tëj ni nga ko gisee ni ngeen koy bindee lii du alxuraan soo ko bindee ba pare nag dañ koy dugg si biir yàpp bi soo ko si dugalee nga ut benn xaj bu fekkee ne góor nga bëgg seen diggante neex ngeen si jàmm mu bëgg la topp la jox ko xaj bu góor bu dee jigéen nga ko bëgg a def jox ko xaj bu jigéen te saa boo koy def itam da ngay ñaan dangay ñaan li nga bëgg yëpp bu ko defee nga jox ko xaj bi su ko defee xaj bi lekk ko bu ko xasee bi lekk rek jeex na incha allahu rabbi kon nag maa ngi ñaan si yàlla parce que ñi may topp dafa bëri ñi may seetaan daa xaw ma ñu si jub xaw si jubut xaw ma ñu si baax xaw si baaxul kon képp ku koy def daal te jublu si lu baax loo xam ne ëllëg ay yiw lay indi yàlla na sotti ku si jublu lu bon nag li ngay def yàlla boo ko gis kon nag euh, ñu ngi mi ngi noonu jox ne leen ko def leen ko comme ni mu waree yal na yàlla rafetal diggante yëpp ñu ngi yem fii yal na yàlla aar ñu sàmm ñu ñëpp kon ba suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah